ngeen jëf soldaar yi Sénégal yeeg la ñuy dund ca Casamance moom la journal Le Quotidien xëy dundalee xëta mu njëkk ubbil yéenekaay bi ñaari militaire ñoo faatu démb ca Casamance wata ba ñu duggoon doon defi opération de sécurisation ngir aar askan wa taxawu leen ba ñu mën a dellu ci seen i dëkk ci Karange wata boobee moo jógi ci ndel ba ñaari soldaar faatu ci am ca ñeneen nit yu ci jëlee gaañu-gaañu mbir yi ci ni ko waa DIRPA xamle ci communiqué ay boor yi deux heures ci digg njolloor gi ca la dëkk bu ñu naan Bassine nekk ca Casamance ñaari soldaar faatu ca amit yeneen ñaar yu ci jëlee gaañu-gaañu gaañu ba mujj ci surveillance médicale yéenekaay bi nañu te lu xew démb keroog samedi te ba dund na fa lu ni mel ci gox bii di les fare ca Sindian Le Quotidien nañu ci gàttal ci diirub juróom-ñetti fan soldaari sénégalais ca Casamance dund nañu fa ñetti accident te ci ñetti accident yépp seeni watam moo jóge ci ndel del Cheikh Yérim Seck fes na ko yéenekaay ñu xëyandool mu di L'Observateur Libération Vox Populi Source A L'As La Tribune la fanaan moytuwul tey jii ci lañ koy defeere mu dem tribunal jàkkaarloo jeeg procureur bi L'Obs gis ne mbiri mi ngi gën a fotoñu ci moom Cheikh Yérim Seck diggam ak sandarma yi li wax enquêteurs yi ci ñeenti milliards yi mu doon wax L'Obs wax nañu ko ba waxaale ñu it ne sandarma yu section recherche yi def yoon perquisition bi ca kër ñoom Fares danañu leen déglu tey Vox Populi nañu Cheikh Yérim Seck dañu ko garde à vue démb waaye mu ngay gën di dugg ci coowal bati pulis toppee ñu topp wax ji ba ci libération fekk fa li tax ba Cheikh Yérim Seck fanaan démb ci loxoy gendarme yi yéenekaay bi nañu ba mu demee ca brigade de recherche la mu waxoon ca la jaaraat waaye dafa lànk kandaara ne du joxe ay sursam ca la ñu ko jëlee section recherche gàddu ko yóbbu conk mu fanaan yi fa ñu yeewu fekk xibaar bu yéeme ci xët mu njëkku Les Échos bi ñuy tëral tolluwaayu ndóol gi ci réewum senegal journal bi ne lañu la ñu ca gis moo di Kolda ak Sédhiou ñooy région yi gën a ñàkk ci Sénégal ñooy diwaan yi ndóol gi gën a sëxin Ndakaaru donte mooy capitale bi taxul mu des ginnaaw ci région yi gën a ndóol ci réew mi Massar jam ñaaju ak Medina Gounass fa la ndóol géeg ñàkk gi ëppee doole l'observateur nañu réewum Sénégal ci boppam moom la ndóol gu métti di yoot te li ñu ko nar a jural moo di coronavirus beeg liggéet yi mu ñu nar a bàyyeel coronavirus boobee journal Source A mi ngi ñuy xamal ne duggaat na ca palais de la république ginnaaw ba fa corona woon am na beneen cas coronavirus bu fa feeñaat gi yoon ab chauffeur la buy liggéey ca palais ba di benn waay coronavirus bi faat ci réew mi libération nee nañu seenub lim mi ngi toll léegi ci juróom-benn fukki nit ak ñeent démb la am yeneen ñeenti néew yu ñëw dolleeku ci néew yi fi newoon coowal suuf li fi nekkoon fan yi yépp la seen nee nañu am na leneen lu dolleeku ubbil yéene bi ginnaaw waa mer moos askanu géejewaay ñoo nar a fipp yëngu yëngal yëglu ba ñu dégg leen ndax dafa am beneen bombu foncier bu fa nar a kalaate ñeenti hectares yi xolu askana ba tax ñu jaaju maam Boye Diao directeur de domaine gi ñuy jaaba jonge fan yi yëpp ci coowal suuf Les Échos nee nañu suba ci àllarba ji ci la ciy tontu indi ci ay leeral ci télévision Futurs Médias la ko fas yéene defee ci émission Faram Facce ak Papa Ngagne Ndiaye njaayu màggat jarota yàggal ndax njëggatu taxaw ñu taxaw ci xët mu njëkk Vox Populi ca póotu ñaari mag ak rakk la seenub goro doon lap ñu bëggoon ko sauver ba far ca faatu